waaleykum salaam. waaw ñu lay nuyu. ñu ngi lay sant grand. tur beeg sant bi. Assane Diouf. Assane Diouf ñu fekk la fii sa place liggéeykaay ngay menuisier déjà ñu gis ne fan nii gis nañu ne dëkk bi métti na sans doute dina am ay conséquences ci seen liggéey par rapport ak bant yi ak venant yi nga xamante ni daf leen yàgg sonal yéen menuisier yi. waaw ñu ngi leen di nuyu leen sant di leen gërëm concernant bu dee ci bois bi nga xam ne ni dafa cher comme ni nga ko waxee c'est vrai que bois bi cher na léegi. mais yàgg na cher suma ne nee yàgg naa cher nag mooy mètre cube bi yàgg na di teg ci différent mètres cubes mais bois yu cher en général sénégalais yi sax ñu ëpp ci ñun ñuy liggéey liggéeyuñ ci bois yooyu. dafa fekk ne bois bi ëppoon ñu koy liggéey muy dibutu ak fraqué dafa jékki-jékki cher moo waral coow li mais cher bi demeewul noonu par rapport ak liggéey ndax lan parce que boo xoolee pri liggéey yi moo changé wul. chambre à ñu ko doon defaree dix ans ci gannaaw ba tey moom la ñu koy defaree donc problème boobu newul ci client newul ci client la nekk. ci menuisier yi la nekk. waaw benn parce que boo demee bu annulé six ans ñoom ñu ngi may dégg par exemple bu annulé six ans ci ci gannaaw chambre à bi ñu doon defaree huit cent mille pratiquement ba tey moom la ñu koy defaree wala huit cent cinquante mille. kon donc cherté bois bi amu ci solo mais ñun ñoo am problème ci côté boobu. ban problème ngeen am. waaw parce que affaire bi. dafa dafa kii maanaam nu ma la ko mën a waxee mooy ku jot ubbi atelier ku jot liggéey tu vois euh, te nit ñi aussi ni ñuy santaanee liggéey ki nga xam ngay jox ñi ëpp ci ñun bokk booy liggéeylu sa bu dee liggéey moom ngay jox mu liggéeyal donte mën na donte mënul parce que fa ngay fa ngay gisee sa bopp te en général nit ki ñu bëri balaa ñoo am balaa ñoo defarlu chambre à coucher dañuy nekk à la besoin doo ko defarlu donc kin kooku nag xoolatul qualité parce que peut-être dugg na ci sëy boo xam ne il faut mu am daal il mu armool donc poosam lay liggéey mais liggéeyul ci qualité wala ci xam-xam loolu yëpp dafay impliqué ci li ci li am comprendre nga euh, ñu ci bari ci ñun aussi boo gisee li tax ñàkk dox am parce que ñun exemple ñeneen ñiy liggéey comme tubaab yeeg genre liggéeyatuñu benn meuble pour muy dem ay dix ans cinq ñun dañuy liggéey benn meuble boo ci paree mën nga ko may sarak sarak mayaat ko sarak tellement day yàgg loolu fan lay delluwaat ci ñun lay delluwaat loolu ba tey loolu ñun la. ñu gis ne yéen comme ni nga ko waxee dañu liggéey benn mbir dans le temps c'est-à-dire day durer ngeen liggéey comme ni nga waxee léegi ni benn mbir boo xam ni yow mën nga ko utiliser may ko sarak sarak may ko keneen ainsi de suite ngeen ñu liggéey ay mbir de qualité mais ñu gis ne Sénégalais ñu si bëri léegi qualité bi ñoru leen dañuy euh, bëgg dem jëli loo xamante ni mi ngi jóge extérieur ñu jënd ko ñu bàyyi leen fi. am na ñu ko ci doon def mais gis nañ conséquences yi ndax lan en général liy jógee extérieur di ñëw doom assez de étagère bi ñuy soxla ba pare ni ñuy comporté woo ci meuble yi du leen arrangé bu yàggee affaire bi day fàcc ñi woo menuisier di ko réparé finalement dootul yàgg parce que ñoom selon ni ñuy liggéey ak ni ñuy liggéey du benn waaye du ñëpp am na meuble yu jóge extérieur yoo xam ne moo gën fuufi yenn ñuy defar fii mais bien sûr prix dafa tolloowul boo demee boo demee boo demee boo demee ci seen meuble yooyu am na chambre à coucher yu mën a jar deux cent mille francs trois cent mille francs am na chambre à coucher yu a jar un million te extérieur lay jógee kon nañu wax affaire bi nu mu demee ba dafa dafa am ay qualité boo demoon Chine gii nga commandé ay mool boo bëggee ay chambre à coucher yoo xam ne dañ la jaay ay deux cent cinquante mais am na fa yoo xam ne boo tegul un million et quelque doo ko am ça dépend ci qualité bi mu ngi mel ni fii ak Sénégal mais nag problème bi mooy fii Sénégal euh, rafet mu taxut a rafet bëree ñaaw mu taxut a ñaaw bëree comprendre nga fi may waxee gars yi dañ lay jox liggéey selon sa atelier ni mu demee parce que dañ ciy séntu ay garantie genre mais dama foofu yëpp day delluwaat ci ne ñun mal dañoo organiser wul affaire bi marché bu pëcc xoola il faut ñu organiser ko importé bi lu tax mënuñu ko kaas mooy grand bari na yu nekk ci bureau yi peut-être am na ñu am sens di liggéey muy dem ci bureau yi wala genre mais bari na ñuy ñu nekk ci bureau yi seen liggéey yooyu ci bureau yi mais boo ko joxee yenn atelier yii ñu ubbi seen atelier bari na ñu am duñ ko liggéey ko di la vérité duñ ko liggéey am na liggéey yu nekk ci bureau yi boo ko joxoon gars yi jox leen ko duñ ko liggéey te moo war a gën a yomb liggéey bi ñuy liggéey bois bu cher bi ñun aussi sénégalais yi seen loxo ngi ci. parce que dañuy jël trop de bois def ko ci meuble parce que loolu lañ ko jàngee donc bois bu cher bi sax ñoom ñoo ko indi ndax chambre à bu war a jël dix plans nga def ci quinze plans seize plans parce que modèle bi nga jàng ci bi nga nekkee xale rek boobu nga xam da ngay gis chambre à coucher boo xoolee bopp lal bu daanu woon ci sa doom day dee. parce que parce que trop de bois nga ci def parce que loolu nga jàng loolu ngay def loolu ci kan lay delluwaat ci menuisier bi boo bëggee dëgg-dëgg. menuisier sénégalais yi ñu ci bari actuellement nii xamuñu dara loolu mooy dëgg te bu continuer nii métier bi day gën a raar parce que da ngay ro da ngay da nekk menuisier di liggéey mais da ngay wóor ne lu ci baree bari da nga koy xool xam ne lii du métier nañ ñu jox nañ ñu jox nañ ñu jox te bu ñu la joxoon tey jii waxuma problème mu temps parce que problème mu li ko mën a causer bari na tardé liggéey li ko mën a causer bari na mais am na ñoo xam ne a tous les moyens te mënuñu liggéey parce que jànguñu ko. ban message ngay lancé état pour ñu gën a bàyyi xel menuisier yi. état li ñu war a def mooy recenser ouvrier yi xool les compétents ñi nga xam ne nii war nañu def ay formation yu wóor te bañ am benn parparloo comprendre nga ñi nga xam ne nii xam nañ ne ñii li ñuy def mën nañ ko jox ko ay borom xam-xam ne waxuma ay gars yi def seen cos seen cravate. ainsi de suite ay gars yi nekk ci terrain bi man métier bi ñu xam leen ci ñu jox leen ñu yor lool te bañ a parparloo ñu testé gars yi ñi ci mën liggéey ñu ñu ñu ñu leen ñu jàngal nit ñi ñi mënul liggéey ñu autoriser leen ñu tëj seen atelier. lii la ñuy liggéey bon bu ñu gisee ku ñu si ñëw di taxaw comme laaj comme question dañ siy sawar daal ba tax na bant bi moom métti na trop trop trop trop waaw métti na bu fa métti yam donc ñu ngi ñaan daal Macky Sall nañu wàññil importé bi xam nga mu bàyyi importé bi mu bañ a duggati si réew mi xam nga mu bàyyi gars yi di liggéey parce que liggéey bi dafa metti dëkk bi metti na trop trop trop trop ne nii xam nga loolu liggéey si bant yi lay yem xam nga loolu dafa metti te ñun lii mooy suñ teraanga lii lañ am waaw si la ñuy saa saa yu xëyee si lañ si lañ nekk si la ñuy daw dépense donc nañu wàññil importé bi daal xam nga waaw ñu ngi sant nag ñu ngi leen sant baax a baax a baax di leen léegi par rapport ak bant yi fan ngeen di jëlee pour ngeen am bant yi bant seer na bant yi moom wax dëgg fa yàlla seer na trop parce que bant yi am na ñoo xam ne dañ koy importer lañ koy jëlee Casamance am na ñoo xam ne ay Tamba foofu lay jógee quoi di ñëw fii donc euh, ñu ñu seer na daal moom seer na ba fu seer yam ñun moom bant yi li ñu si daan gañee gañeetuñ ko si parce que importe bi moo ñëw xaw ñëw gaañ xam nga ñu ngi ñaan tamit sénégalais yi nañuy nañuy jël nañuy jël local bi waaw nañuy liggéey local bi quoi bàyyi importé bi parce que tamit xam nga ñun ñëpp c'est la famille daal ñoo bokk réew mi waaw ñuy jàppalante suñu biir daal xam nga voilà dërëm bi bañ a génn gaal bi quoi noonu la demee <laughs>